ba nga xam ne euh, front bi moom la tënk tey bu ñu dajee donc li si jiitu mooy dem jaale ji mbokk ñu nga xam ne ñoom ñoo ñàkk seen bakkan ci mbëkk mi euh, dajale ay borom xam-xam ñoo xam ne seen xam-xam màcc na ci wàllum élection ak ci wàllum droit pour ñu jàppale ñu ci lépp loo xam ne mooy surveillance processus électoral boobu fexe tamit la nga xam ne mooy décret ba Macky jël tas Sénat indi ay membres yu bees yoo xam ne ñenn ñi ci parti politique am nañu bokk donc loolu tam décret boobu nañu bokk suñu koy attaqué leneen ni daf ay ndaje ay manifestation ay marches yoo xam ne nañ ko def fépp ci dëkk bi dans les 46 départements ak ci diaspora ministre ba nga xam ne mooy organiser élection yi mu doon ministre boo xam ne du bokk APR du bokk Benno Bokk Yaakaar day nekk un ministre neutre et impartial comme ni ñu ko defee woon en 2012 comme ni ñu ko defee woon en 2000